lii su sous-estime handicap doomu aadama la. waa noonu non non mais ne da may déglu tos non non mais lii sous-estimé lii maanaam soofantal non lii dangay ngay soofan da ngay soofantal nit non non lii da ngay soof non non du sama feebar lañ laal mais nit ku ma ne ku ci nekk ci ñun ku ci nekk ci ñun yow ku ne xam ne laa comprendre lu yow laajuma la yow nga dara yaa ngi dégg bàyyi leen ko mu nuyoo comme ni ñëpp nuyoowee patience rek ñu bàyyi ko mu nuyoo waaw euh, Voilà, euh, di am kon contentement. te ñama xet bàyyi kii mu yegg. non non bàyyi ko mu nuyoo non bàyyi ko mu nuyoo. ah yow tamit di am contentement si les tâches yoo xam waaye tamit di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ñu. boole ñu nuyoo bi rek boole ñu ko ñun ñëpp rek. boole ñu nuyoo. boo dañu nuyoo bi rek. mais kii ah, ah, la ba waaw ah, bu dul dara bu <laughs> tos tos tos waaw tos bàyyi ko mu nuyoo waaye tamit bàyyi jàmbur bi mu nuyoo waaye tamit. mais même ma joxul raad respective tey bu ma bu ma toogee fii tey yow ñu ngi jégalu ma nekk euh, ambassadrice des bégayer

ça se dit pege moi fii Sénégal di nuyu ñoom ñëpp bugguma jël nag jël nga temps de jël nga temps ba pare de <laughs> da nga naan bugguma émission bi jeex yow kay comme jël nga temps ba pare waa kon mu jég maa ngi jégal ñu lay jégal donc yow tey bu ñu doon laaj yow la kan ak euh, looy représenté ak euh, ban association nga bokk ak yow lan mooy sa liggéey lan nga ñuy wax euh, d'accord man ma ngi tudd maam Diej Diarra ñu gën maa xam si euh, euh, la bégayeuse maanaam jigéen buy. dër tër. ma nekk cadreuse en même temps nekk monteuse. àdduna di dox. technicien rek nee technicien rek bu ko détaillé boo ko détaillé. technicien en audiovisuel Mm-hmm. aduna di dox ma dugg si aar bi dem ba tey samba pap samba bi réalisé nee na kii seen collègue la buy wax bu ko kenn dagg cadreuse monteuse ak yooyu neen technicien rek ak nga ni aduna di dox aduna di dox ba pare yow ah, la moo tax nga bëgg ay mooyu difficile yow mënoo ni un jour wala mais il faut nga guddal aduna di dox yow la moo tax ñi dër ngeen ñemee di mettil maanaam di compliquer mais eggal eggal non mais lépp si gëm sa bopp la mais di sonal nit ñi tamit. non non sa bopp mais sonal nit ñi. am confiance sa sa bopp lay ni wala nii da ngaa war a wax moo bi. doo ko war da nga war a wax da nga am envie wax. mais mais daa war a si société bi bokk la bokk. yow boo demee. li li li li ma sa morom booy exemple man maa ngi wax sama soxla man damay wax muy càng. yow yow yow moomoo génnagul moo. non yow moomoo non non non non non non non xaaral ma non non non non parce que non non non non Djibi Sèye munoo di jël ci exemple ak di ma jéem a tolloo ak sa bopp man damay wax mu càng yow wax du génn. jël ma exemple mais bul ma minimiser. minimiser wu ma la mais munoo wax. dama dama. te yow boo demee bay wax. man day wax mais émission bi temps bu nekkee temps nag mais yéen invité. waaw ok <laughs> léegi léegi yow euh, léegi waaw léegi ak dox après. Ah, voilà. Hmm. te si confiance en soi bi en euh, soi ma dugg si à. Fall dama may ma jël si toog nii. <laughs> Ah, dama loolu rek. <laughs> dëgg yàlla. non yëg <laughs> na. wala wala de waaw. <laughs> te kii te kii yàpp na ma yàpp goo xam ni maanaam bi muy invité kii dafa ne ma day invité waale El Basir xam nga El eh. ambassadeur des Béguer kii bi muy invité kii réew na réew goo xam ne dafa ni ma nañ invité waale el ma ne ko xanaa dañuy fanaan ci émission bi kon. Ah, eh, te incha allah émission am ma moom. parce koy animé. yaa man aywa. non non non si si parce que da war a def. tour si plateau yi ba weeru koor bi ñu xëy huit heures émission balaa heure dog émission bi xam naa dina jeex. émission boobu man xam naa tur bi ni nit ñi dàqee ñu koor. marathon lay tudd. ma <laughs> nga ne yow àdduna di dox. Euh, ba tey man ma dugg tey si li nga xam ne mooy métier journaliste bi. yow journaliste nga. mais journaliste bu dë dër. jaar taxawal bul yeggali. ah waa delloo bi léegi. Béguès ok maa ngi jégalu maa ngi donc tey il faut ñu am tuuti son. 78 euh, Mbaye. 499 499. 22 49. 22. 49. 49. on partage le live on partage on on, partage bàyyi leen seen commentaires. da ngeen di seetaan waaye ñu leen di jox ngeen meew donc bu ko defee bu kenn nekkee ci ligne bi rek jox ma ko Mbaye. votre appel ne peut aboutir. Mbaye am kii dafa dem de indiwaatam beneen beneen numéro. 78. 78. 405.

donc nañu dem ci euh, nañu dem ci animatrice bi wala journaliste bi donc mu wax ñu mom kañ la choisir nek animatrice ak bu dé amna ay projet lan moy projet et que interview yi ndax dang koy préparer ndax ki ngay interviewé dang koy wax ne ko na muñ tok xaar wala lepp c'est spontané quoi lepp c'est c'est naturel Toch bàyyi ko dañuy waxtan ak mom quoi aduna nga koy seetaan quoi bàyyi ko commune bu ko déconcentré xanaa xamoo li day day yok stress nit ku deur day gëna deur xam naa li ma lay wax. Jeylaani maa ngi nuyu euh, Adja Everywhere numéro 2 maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moog Jeylaani ñoo sama rakk la. Hmm? mais Adja Everywhere. numéro 2 wallaahi maa ngi koy nuyu bu baax baax baax Jeylaani nga nuyu ma Adja Everywhere ok euh, d' accord sa sànq ni la may naan la. sànq ngi woon ci euh, mhm. la monteuse monteuse la maanaam moo li bi animatrice bi ak journaliste bi.

professeur ak dërkat bi nga xam ni dafa nekk ci centre d'appel dërkat bi nekk centre d'appel day am tey ji yow tey ji bu mën a dégg dafa mel ni dafay yow da ngay xeex benn complexe bi nga xam dafa am ci ñi dër ba du nangu def ay métier euh, communication ñoom nga bëgg a waxal ne amul limite quoi nit ki lu nekk li nga bëgg def wala nga bëgg koo kii mën nga ko def quoi dafa mel ni waaw euh, déjà euh, fan yi pass am na ku compte contacté waaw mu woo la nee ma neel woo woo moo gën a yomb am contact day gudd woo moo gën a am na ko ma woo euh, d'accord euh, nee ma euh, dafa amoon li benn formation li ko def ko ba pare léegi mu réussir concours bi war a def entretien mhm. jour bi war a def entretien mu ñëw mooy kal mhm. parce que déjà est stress ni mu def moo koy def mm-hmm. léegi kook noonu la perte li boobu mm-hmm. ah, entretien boobu mm-hmm. te tamit am tamit ñoo xam tamit dañuy dem di def fi entretien si entreprise mais duñ leen jël mais de c'est juste tey dama bëgg tey wawante ñi nga xam te dañoo de si sosi jote bi lañ bokk lañ bokk tey nit ki tey ni mu amee droit di wax muy talal man a keneen ki nga xam ne dafa dafa dër muy wax muy bu ñu la yeggalee tamit maam Dia euh, kii la béggees bu ñu la yeggalee euh, da nga ñuy dimbali ñun dimbali waale sa bopp bu ñu la yeggalee rek nga bàyyi mu jàll. Ah, pourtant non plateau la xam nga lii du mbedd du kër. li plateau la mais temps la yaa ngi dégg li ma Pape Samba di wax léegi ni ma temps. non seulement da koy yegg rek mais day jéem a changer mu. voilà waaw waaw waaw waaw waaw merci beaucoup. te début bi Abba mu ñëw bu ko kenn dagg. Abba moo mujj di ko. maa ngi jégalu maa ngi jégalu aja aja. patience day am limite. léegi dañuy wax lan mooy say projet tey jii ak interview yi ndax mës nga ci am problème interviewé nit ba après ay coow am ci mu wax la loo xam ne énervé na la quoi. waaw non.

<laughs> man man. commencé na ëppal man amul lu may préparé préparé parce que déjà man damaa ñëw si ni ma tëddee maanaam si naturel bi ma ñëwee. kii yow laa bëggee da nga naqaree invité rek. da doon toppandoo. ak man tamit.

Madame ti ti madame ti time aussi. Ah. Ah. Télévision. Ah. Vous êtes invité 5 minutes. Ah. Madame, vous êtes invité voir. Parce que nit bouée so du wartan ah. et du nuo ay nit. Ah. Mon projet, mon inco voir 5 minutes. Ah. Mais y a au bout de 5 minutes, nous donnez tagi ay normes télévision. Mm-hmm. Parce que ces 5 minutes

loolu mu bind waaw mais loolu la binduloo. mooy bind nee na gërëm am. joxal l'abbé Guédiawaye suñu association bi dañoo am benn projet benn événement suñu association bi dañoo am benn événement boo xam ne. kon yow yaa ngi fi euh, bi damay damay jox euh, rendez-vous li lépp le li le 20 octobre fële ca Corée muy tournée mondiale du. bëggee ma ñu ñu war faaw. ah tur na ñoom. ñu am jot. ñu waxtaane waxtaane le pouvoir de d'écoute maanaam dërët bi dafa soxla. ku koy ku koy ku <laughs> tamit tamit tamit nit ñi bu ngeen di ñaan tamit edd ah, tamit di ñaan tamit képp koo xam ne man solo ah, awa waaw waa station yónni ñoom yónni. barki am acc acc acc acc acc lami tamit di ñaan tamit képp koo xam te mën na see jàpp te jàpp tamit si bés ba incha allah léegi di jàpp si mu jàpp si ñu ngi ciy woo képp koo xam ne dër kat nga ak koo xam ne nekkul dër kat ak waa média bi tamit ñëpp ñi ñoo ngi leen si ñoo ngi leen si woo ah, awa après tamit nga nga jàpp si de ok waaw